déclaration de politique générale bu premier ministre bii di Ousmane Sonko waroon a amal biir assemblée nationale daal di koy sabab si mbir moomee kii di président Bassirou Diomaye fay mujj naa jël ndam li ci député Benno Bokk Yaakaar yi coow loolee nu mu demee moom mooy que ne ginnaaw ba kookee di président Bassirou Diomaye Faye binde woon waa assemblée nationale ngir ñu daal di amal akub session extraordinaire daal di saytu naka lañuy ñuy def le premier ministre Bidi di Ousmane Sonko bir assemblée nationale dal di fay amal déclaration de politique générale am kii di Amadou Mame di président de l'Assemblée nationale da fixé woon akup date le 11 septembre bi jëm le premier ministre Bidi Ousmane Sonko di ñëw bir assemblée nationale dal di fay amal déclaration de politique générale té l'ennemi, li ni mel di Amadou Mame Diop amul prérogatif. ngir amal ko manam règlement intérieur bu nekk assemblée nationale da ko koy tere ndax li ni mel président de la république rek moom moo am sañ-sañam ci réew mi di Sénégal ginnaaw ba kookee di Amadou Mame Diop fixé le 11 septembre bés bi nga xam ne ne moom le premier ministre bii di Ousmane Sonko war a ñëw biir assemblée nationale daal di fay amal déclaration de politique générale am président Bassirou Diomaye fay da ko bindoon akub lettre daal di koy xamal que ne sañ-sañ boobee mu jël daal di fixé akub date sañ-sañ boobee mayuñ ko ko ci réewu Sénégal

moom la premier ministre bii di Ousmane Sonko wala a dem biir assemblée nationale daal di fay amal déclaration de politique générale am te date boobee du benn budut le 13 septembre 2024. ginnaaw li ni mel premier ministre bii di Ousmane Sonko daal dinay xamal sénégalais yi que si lu yàggul dara président de la république dina daal di génn daal di àddoog ñoom ci situation bu catastrophique bi nga xam ne ne moom lañ fekk ci réew mi. ginnaaw ba ñu leen fale ñu daal di uutu kookee di président Macky Sall. si li ni mel premier ministre bii di Ousmane Sonko ne kii di président Bassirou Diomaye Faye ci waxtu bu ñuy wax ni dafa génn réewu Sénégal. waaye bu dellu dina jàkkaarloog askanu réewu Sénégal daal di leen di wax nuñ fekkee réew mi ginnaaw bañ wuutoo ci boppu réew mi kookee di président Macky Sall. si li ni mel premier ministre bii di Ousmane Sonko ne ci jamono yuñ génn. junjoon na sénégalais yi ci situation bu catastrophique bu ñu fekkoon ci réew mi ginnaaw ba leen kookee di président Macky Sall jébbale woon lenge yi ginnaaw bañ amalee élection présidentielle 2024 yi ñu génn. ne président ba Bassirou Diomaye Faye bu dellu siwaatee ci réew mi dina amal benn discours à la nation daal di gën a faram-fàcceel yi yàqu-yàqu yi ak ñaaw ñaawteef yi nga xam ne ne régime kookee di président Macky Sall nekkee woon nañ ko fi. ginnaaw ba leen sénégalais yi wóoloo woon na daal di leen di dénk réew mi mais kookee dina ko faram ci bépp domaine ba sénégalais yi daal di xam carrément catastrophe yi nga xam ne ne régime kookee di président Macky Sall amaloon nañ ko ginnaaw ba ñuy nekk ci bopp réew ginnaaw li ni mel Thierno Alassane Sall mi nga xam ne ne moom mooy njiitalu parti bi ñu dippee la république des valeurs yëkkati na ay kàddu daal di koy jëmalee si lu kookee di président Bassirou Diomaye Faye daal di amal la daal di nekk arbitre ci coow lu jaar ci diggante assemblée nationale ak premier ministre bii di Ousmane Sonko. si li ni mel kii di Thierno Alassane Sall ne moo ngi rafetlu bu baax lu kookee di président Bassirou Diomaye Faye jël responsabilité am daal di bind président de l' assemblée nationale ngir ñu daal di jàpp date bi nga xam ne ne moom la ñu war a amal déclaration de politique générale ci réew mi di Sénégal. ne loole nag yàggoon na ko xaar ci président de la république bii di président Bassirou Diomaye Faye te ne li ni mel daal dinay firndeel que ne kookee di président Bassirou Diomaye fay nekkul rek ki nga xam ne ne day gunge premier ministre bii di Ousmane Sonko mi nga xam ne ne Sénégal yu bëri dañoo jàppoon que ne moom mooy président de la république ndax daa meloon ni moom moo doon buum di buum yi te kookee di président Bassirou Diomaye fay doonut woon lenn lu dul ko pilotam maanaam ki ko doon jàppale ngir mu daldi amal lim bëgg ci réew mi di Sénégal ne lu kookee di président Bassirou Diomaye Faye nag jël ay responsabilité daldi di bind waa assemblée nationale ne loolee day prouver que ne kookee moom moo nekk ci bopp réew mi kookee moom mooy président de la république moom moo nekk ci commande réew mi te ne acte boobee da koy magnifier di gën a digal kookee di président Bassirou Diomaye Faye mu jël ay responsabilité ci bépp situation bu posé wu ci réew mi di Sénégal ndax mom la sénégalais yi daal di tann ci élection présidentielle 2024 ñu génn donc koké da wara taxaw taxaw président de la république ginaaw li ni mel kiñ ñu dippee Cheikhouna Keita te ñu gën ko xam ci commissaire Keita démb ginaaw bañ ko convoqué waté biir dikk dañ ko dal di placer en garde à vie lu sababoon nak ñu don convoqué kiñ ñu commissaire Keita boobu ba légui ci réew mi di Sénégal mom moy que ne kookee di commissaire Keita daa génnoon daal di wax que ne premier ministre bii di Ousmane Sonko ak président de la république bii di président Bassirou Diomaye Faye dañ doon jàppante maanaam dañu doon xeex biir pale de la république te ne loolee lu ko sababoon moom mooy màggal Touba bi ñu génn waaye tamit benn contrat bi nga xam ne ne réewu Sénégal signé woon na ko ak réewu bitim réew li ni mel nag sababoon na ñu daal di njëkkoon a convoqué kookee di commissaire Keita waaye kookee di commissaire Keita ginnaaw ba mu bàyyeekoo woon ci convocation boobee ñu amaloon ko biir dikk ba mu génnee woon na daa meloon nag koo xam ne ne da doon wane contentement di manifester victoire am ndax ne nañ koo oo ba noppi daal di koy wax mu andi ay preuve te preuve yooyee dina ko daal di andi firndeel ko enquêteur waaye kookee di commissaire Keita démb ginnaaw bañ ko oowaatee daal di nañ koy jàpp daal di koy placer en garde à vue waaye tamit ci fàttaliku rek kookee di commissaire Keita ginnaaw ba ñenn ci communauté mérite bi jëlee woon akub ndogal ne dañuy amal akub mars jëmale ko ci kiñ dippee Cheikh Omar Diagne kookee di commissaire Keita moom moo yóbboon demande d'autorisation bi biir préfecture ngir ñu daal di leen di may te daal di amal mars boobe waaye li ni mel dañ ko mujjoon a rejeté ci réew mii di Sénégal kookee di commissaire Keita nag mujj nañ ko jàpp daal di koy daal di koy placé en garde à démb ci réew mi di Sénégal ginnaaw ba mu sosalee premier ministre bii di Ousmane Sonko ak président de la république bii di président Bassirou Diomaye Faye li lañ leen andiloon comme actualité ñoo ngi leen di jox di daje ci yeneen mbir incha allah.